asalaamaaleykum mbokk yi suñuy frère ak suñuy sœur yi nekk Afrique du Sud ak fu ñu féete ci biir Afrique du Sud euh, rawatina nag euh, dëkk yi nga xam ne euh, fa la violence yi gënoon a bëri man seen frère seen xarit seen mbokk Ousmane Sonko maa leen defal audio bu gàtt bi di leen nuyu di leen ziar ci bés bu màgg bi ci feet bu màgg bi muy feetu tabaski waaye di def audio bi surtout pour massawu leen massawu leen ci coono yi massawu leen ci fitna gi massawu leen ci eh, jafe-jafe yi di leen eh, wax ni eh, yéeg nañu suivre nañu à télé li xew di ko naqarlu trop massawu peuple Afrique du Sud yëpp nag waaye rawatina suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañu ñu bokkal Sénégal gii te jom ak fulla ak ban gàcce ak bëgg tekki ak bëgg a jëriñ seen bopp jëriñ seen seeni mbokk jëriñ seen réew waral ñu dem fu sore sore sore fu mel ni Afrique du Sud di fa seen doole ñu leen di massaw yéen ñëpp nag Euh, waaye it jot nañu ci xibaar ni bëri na ci yéen ñoo xam ne seeni bërëbu liggéeyukaay yi surtout ñi nga xam dañoo nekk ci commerce bi euh, jot nañ ngeen jot ngeen ci am ay ay lorange mooy euh, dajji nañu bërëb ya jël nañu seeni matériel jël nañu seen alal muy lu diis lu métti ndax loolu koo xam ne loolu rek la am muy capitalam di léppam ñu jël ko daanaka dañ ko delloo si à zéro rawatina nag bu dee fu sore sori réewam la nekk nga xam ne doxandeem la fa muy lu ñuy méttit lu trop suñu pexe bëriwu ci waaye nag ñu def audio bi rek pour naqarlu ko pour massawu leen pour ñaanal leen xettalu yàlla waaye pour wax leen ni lépp luñ ci mën ci suñu capacité bu néew rek bu soobee yàlla daañ ko def ñu ngi ñaan nag euh, ñu defal ñu recensement bi ba ñu xam exactement euh, nu mu demee li fa xew ñi fa ñàkk ak lan la ñu ñàkk boo ko defee nañu seet bu dee dañuy war a def solidarité boo xam ne appel lay doon à la solidarité ñu def ko bu dee beneen xeet it ñu def ko ba xool nu ñu mën a jàppee ci liggéey bi ba suñu mënul far seen coono it ak seen naqar ñoo xool nuñ ciy contribuer rek bu mu wàññeeku tuuti. ñu leen gërëm di leen sant di leen masawaat bu baax a baax a baax